garde corps Ousmane Sonko yooyu nga xam ne nag euh, dañ leen tegoon loxo gannaaw bi ay jàppante amoon fële ci kii ci département bu Mbour euh, bi ñu fa doon amal lii di nemmeeku tour ñu tëjoon leen nag euh, weer bàyyi nañ leen kon fi mu nekk nii génn nañu kaso ba sax kii di njiital Pastef Ousmane Sonko dalal na leen fële ca këram bésu bu tey bi collectif bi ñuy woowee Jamaguène troisième mandat ñoom nag euh, démb tàmbali nañ ay ndaje yoo xam ne dañ koy amal ak ay kuréel aki i mbootaay yu nekk ci biir euh, réew mi euh, muy nag ay mbootaay religieux société civile ak ay centrale syndicale ak ay mouvement citoyen activiste ak ñoom seen lañ ca jublu nag moom mooy ñu ne dajale daal seeni doole ngir nag loolu nga xam ne daal moo tax a jóg muy Jamaguène troisième mandat ñu xool bu baax anan nañ lañ koy gën a mun a euh, doxalee. gannaaw Ousmane Sonko nag Adji Sarr it def na ab déclaration euh, jëmale nag ci seen. Euh, confrontation boobu nga xam ne amoon na ci bureau doyen des juges moom Adji Sarr nag euh, nee na sax euh, Ousmane Sonko euh, da ko bett ndax daal ca la mu lànk tontu li nga xam ne moom mooy laaj yi nga xam ne kon moom ay awkaam Adji Sarr ñu ko ko doon laaj moom moomu nag mu ngay wéy daal di dëgg ci li nga xam ne moom mooy accusation ya kon ca la sax nee na daal yooyu la accusation lu am la mu ci Ousmane Sonko da ko doon sàkkook di ko menacé kon daal da koo gën a euh, fësal gën koo dëggal te sax moom nee na day sàkku ñu amal ab procès public ngir mbir mi daal mën a jeex. ba léegi ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr boobu ki nga xam ne moom mooy euh, ex capitaine gendarmerie di Seydina Oumar Touré ñu ne moom nag doyen des juges woolu na ko kon dina dem wuy ji ñu déglu ko si mbir moomu ñu ne le 12 décembre bi ñu déglu kon waaw bu jotee calay lay def bu ñu sukkandikoo nag suñu naataango yu journaliste koy joxe xibaar bi ñu ne nag euh, ki nga xam ne sax euh, moom mooy euh, juge d'instruction kon amoon nañu boobule convocation ba sax kon waaw kooku capitaine Touré kon dina dem wuy ji ci boobule mbir. Karim Xurum Xaq ak Cheikh Omar Diagne gannaaw nag bi ñu leen tegee loxo euh, ba ba xam ngeen ne gannaaw nag euh, génn àdduna Imam daw ci lañ leen jàppoon am wax yi ca waxoon kon ñu tegoon leen loxo euh, lu ëpp ñaari weer nag ñu ngi kaso wante nag fi mu nekk nii ñu ngi xaar ki nga xam ne moom mooy procureur addu ci seen i mbir ndax seeni i avocat dañoo laaj ngir ñu may leen lii di liberté et provisoire xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca Mozambique foofu nag euh, ab tribunal dafa condamné douze ans de prison ki nga xam ne euh, doomu ka fa nekkoon njiitu réew la di Armando Guebuza euh, kon Armando Guebuza bu mu nekkoon fa njiitu réew doomam la ñu daan boobule daan doomam boobu di wuyoo Ndambi Gézuba wante nag du moom dong amaat na. Euh, ñaari ancien patron li ñuy woowee espionnage ak nag benn ancien chef de renseignement économique nekkit chef d'entreprise kon ñoom ñooñu daal ñi ñeenti nit kon dañ leen tëj douze ans de prison ñu ne eh, boobu pen nag li tax ñu tëj leen ko ñu ne daal dañ leen tuumaal ci mbirum eh, scandale eh, de corruption maanaam daal ay mbirum ger ak luubal ay xaalis yoo xam ne ñu ne indi woon na ay jafe-jafey kom ci boobule réew Mozambique xibaaru bitim réew benn ponk lay doon moom la ñuy jeexalee fële nag ca Allemagne dañ faa teg loxo. lu toll ci vingt cinq euh, membres ñu ne nag dañoo bokk ci benn groupe extrême droite ñoom nag dañ leen di jiiñ ne daal dañoo buggoon amal ab euh, coup d'état la ci réew ma ngir daaneel régime ba installé fa euh, koo xam ne kon benn prince la gannaaw nag enquêteurs yi kon bi ñu doon soupçonné daal mbir minimel ci lañ leen teg loxo ñooñu noonu ñeen ñu njott ne sax dañoo buggoon kon daal jël lii di chambre basse ba muy Bundestag maanaam seen assemblée ba kon lañ bëggoon teg loxo sax ñu ne euh, ab groupe armé la maanaam dañoo yoroon i ngànnaay loolu la ñëw tey ci xibaar seen teewlu jox daje ëllëg jaa